waaw jarul ngeen fay dem ñu ni ma militant yi ñooy tax sax ñuy dem ma ne ah, waa xanaa bu dee loolu waaw bu ko defee kon nag nit daal bu la faalewul da ngay toog di ko xool waaw nii rek la demee waa xam nag ñoom wut nañ seen président ba noppi nañu toog xool ba xam looy xew waaw ndax yàlla mi fi nekkoon moo fi nekk ba léegi waaw kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu ma ngi amee foofu ca Tiwaawan ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon màggal juddi yonante bu tedd bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ni nag yëkkati nañ ko foofu bañ ko fa yëkkatee nag am ñoo xamante ni dañu bokkoon ci yeewi askan bi bëggoon dem ziyaare ji këru ku leen ne mën ngeen dem kër yëpp mais bu leen dem ziyaare ji kii nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Sy Mansour di xalif général des nga xamante ni moom moo fi toogal allah ji malik rabbi allahu taala ba taalibe yëpp ñëw di ko fekk si di ko ziyaar kii nag kàddu yooyu la yëkkati ne waaye yeewi askan bi bu ñu dem ziyaara ji kooku mais keneen képp ku ñu ziyaara yi baax na mais bu ñu dem foofu ci kër Serigne si Sy Mansour di xalif général di Tidianes en tout cas man awma commentaire bi ma ciy def yéen ñiy seetaan ku ci nekk am nga sa xel yow yaa ciy defal sa bopp sa commentaire li li bon te Sénégal tàmm ko léegi kilifa guy taxaw di xas kilifa mbokk mu jël téléphone di ko fay te naan lan mooy sujet bi tey ki wax sa xalaat ci kan nga koy wax yaa koy dundal gis na la xam na la yorloo ko nga jël sa kàddu dal ci kawam ba sa xol sedd moo tax gis nga boo gisee ñu am problème kenn ku nekk boo juwut jullee sa compte sa julli dañ koy wiire ci compte ka ngay jëw wallahi bari na ñuy julli yàlla bi wiire compte yooyu yépp lii ma leen di wax hadis bi mooy atadruna manil muflis qaalu al muflisu fii na man mu ne déedéet muflis dëgg-dëgg mooy ku indi ja julli gu yàlla nangu aj gu yàlla nangu asaka ju yàlla nangu koor gu yàlla nangu waaye lamiñ bii du ko téye mukk ci deru gor yi xam nga dañuy wax waxuma kenn na njaaloo ci njaalo dafa xaram bittifaaq waaye fanweeri njaalo yu tegal juróom benn moo gënal yàlla toog di déglu jëw seen maam Seydi Hadj Malick wooy na ko c'est dama dul daw di sukkandiku ci moom toujours rek waaye fanweeri njaalo yu tegal juróom benn wala lu ko ëpp moo gënal yàlla nga toog di déglu jëw waxuma nga toog di jëw de waaye nga toog di déglu jëw mu ngoog Seydi Hadj Malick wax na ko euh, kiy jëw ak kii déglu kan moo ci may moroom ma mu wax kii bu amuloon kuy déglu boo ko fekkoon ca taatu garab ga muy wax nga naan waaw de diw de dafa dof mu nga ca taatu garab ga moom rek di wax waaye bu amul ku déglu rek kenn wax moo tax toujours toujours toujours dañu bàyyi xel ni julli yi ñuy julli yàlla di ko nangu ñu ngi koy wiire ci compte jàmbur wallahi mu ngi ci am ngi ci xadis boobu ma leen wax te kuy jëw nit ku nekk ëllëg yàlla dana def benn jëmm daggate ko taal ko jox la ni la lekkal nga gis ayuhibbu ahadukum kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo beneen vidéo bii nga xamante ni kii di sëriñ Babacar Sy ibn sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick di sët ci Alaaji Malick si radiyallahu taala am ay kàddu yu am solo yoo xamante ni yëkkati na ko te yaakaar naa ni képp ku yeewoo ci Sénégal bàyyi ci xel war nga bàyyi xel ci nopp ci li nga xamante ni kii di sëriñ Babacar Sy ibn sëriñ Abdoul Aziz si yëkkati na ko li gën a bon ci Sénégal jamono ji mooy lu ñu ràññeeku mooy kilifa jóg di dal ci kaw kilifa kilifa jóg di xas kilifa ay kilifa lañ fi gis ñu ñu tuddee kilifa jóg taal seen micro taal lépp au lieu que ñu jàngal nit ñi lan mooy àdduna jàngal nit ñi lan mooy yàlla jàngal nit ñi lan mooy yar jàngal nit ñi lan mooy teggin jàngal nit ñi naka la nit war a comporté woo ak àdduna bu doy waar bi ak axru zaman bii ñu toll ñoom yàlla may leen ci seen taarixu maam ba tey nit ñi di leen vénérer partout ba ñu am taalibe partout nit ñi di leen déglu ba wax bu ñu wax ñi déglu leen yaakaar naa ni am na ay kàddu yoo xamante ni war nañ ko mën a gis ci kilifa ay kàddu yoo xamante ni dañuy gis kilifa jóg di ngagne moromu kilifam kilifa jóg di xas moromu kilifam tay ay kilifa suñu joge di tal micro di tal caméra di xas sen ay moromu kilifa ño xamantene dañ leen wara hormal ormal ëllëgat ci biir xale yi suñu nekké ci tiktok bi di wérante nit ñi suñu nekké sen biir kër lu way xamal nit dembu nga tegaat ko ci kaw plateau yi suñu nekké ci réseaux sociaux yi lu nit xam nga taxaw di saga nit je crois que tay amna part de responsabilité bo xamantene tay ño xamantene ñom ne ñoom ñoo ñu waroon éduquer ñom ñoo ñu waroon yar ñom ñoo ñu waroon woon la le bon chemin tay ñom ñun suñu teguwul ci yoon boobu xale yu ndaw yi fan la ñuy tegu en tout cas muy ay kàddu yu am solo yoo xamante ni kii nga xamante ni mooy Serigne Babacar Sy ibnu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick yëkkati na ko muy ay kàddu kilifa di kàddu responsable di kàddu kilifa diine di kàddu koo xamante ni kàddu jullit la di kàddu koo xamante ni kàddu lislaam la ndaxte ku nee l'islam mooy paix ku nee l'islam mooy social ku nee l'islam mooy jàmm ku nee l'islam mooy digle lu baax kon yaakaar naa ni kii tey su waxee lii du bett kenn ndaxte su ñu nee kan mooy waajuram ñu ne sëriñ Abdul Aziz si Dabakh Malick rabiyallahu taala muy kenn koo xamante ni tey ci njabootu Alaaji Malick si yaakaar naa ni amul benn këru diine bi ngay dugg amul benn këru tarixa bi ngay dugg te xolu doomu aadama yi nekkuñu ci kii nga xamante ni mooy sëriñ Abdul Aziz si Dabakh rabiyallahu taala ndaxte saa yu yëkkatee kàddu ñëpp dégg ko ndaxte saa yu yëkkatee kàddu ñu xam ne kàddu pee la indi. saa yu yëkkatee kàddu ñi xam ne kàddu jàmm la indi saa yu yëkkatee kàddu ñi xam ne ni que kàddu bi nga xamante ni mi ngi delloowaat nit ñi su suñu borom xam ne ni que aduna amul solo lenn moo am solo mooy suñu borom yàlla ndaxte keroog yowmal xiyaam lépp lu waay liggéey ci àdduna rek yow yaa koy layoog sa borom je crois tey kii nga xamante ni mooy Serigne Babacar sii ibnu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick kaddu yi muy yëkkati lu mat a bàyyi xel la loo xamante ni askan bi dañ ko war di ko déglu saa su ne ñu jël ay vidéo am di ko teg di ko tegaat pour delloosiwaat jeunesse bi delloosiwaat askan bi delloosiwaat leen que ñëpp xam ne ni que axlu jamono lañ toll waaye teewut jëf ju baax jaa ngi fi kilifa yu baax li ñu fi liggéeyoon ba tey mi ngi fi ñu bañ a topp yenn kaddu yoo xamante ni daf ñuy dévitéloo su daf ñuy dérivé loo ci suñu ay yoon dérivé loo ñu su suñu ay culture dérivé loo ñu su suñu ay valeur